waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di jot jottali ndigal lu koo ci sëriñ bi jëm ci jullit tabaski gi sëriñ bi mi nga xam ne jullit tabaski gi ren ñu ngi koy jullee ci biir jumaa ji ni ñu ko defee woon ci kore gi bu 9 heures et demi jotee maanaam juróom-ñeenti waxtu yi teg genn wàll ci la ñuy taxawal sëriñ bi nag mi ngi soññi bokki taalibe yëpp ñu teel a ñëw ndax bisub àjjuma la dajeel te dañoo war a dellu rendi ji dellusiwaat julli si àjjuma moo tax sëriñ bi wax na ni képp ku bëgg julli gi fekk la fi na nga fexe ba 9h30 fekk la fi sëriñ bi mi ngi fàttali ndénkaane yi nga xam ne moom la woon ci kor gi ci wàllu ñu bàyyi xel ci jataay yi sorente te ko ak si raxasu ñëpp itam ñu takk masque ànd ko bi yar teggin te bu ñuy génn itam ñu bàyyi xel ci buuxante yi ci bunt bi ni nga xam ne noonu la ko santaane woon ci kor gi ndigal la mu joxe woon ci kor gi rek mooy li mu joxe ci tabaski gi kon nag ñu ngi séntu ñëpp di ñaan ñëpp jàppalante ceeg ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi jox ndigal li ñuy sàmmonteeg moom jigéen ñi dem ñu dellu dem ca sow ba fa ñuy jullee ajjuma foofu la ñuy jullee tabaski mu ci yokk bi nga xam ne moo feete sow wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu